noo ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo nekk ci boppu njabootu Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu Cheikh Mouhamadou Mountakha noo ngi ñaan suñu borom nu ko fi te mayal nu ko ak wér te defal ko ngërëmal Serigne Touba te nu ànd koog moom bokk yi ginnaaw bu ñu nuyoo kilifa yoon wi ñoo ngi nuyu cheikh Mouhamadul Basir Mbakke moom cheikh Abdoul Khadir Mbakke di ko ndokkeel si ci bis bi di ko bokk seeg moom ndax jëmmi cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moom lañuy ñuy fàttaliku lislaam bépp a ko bokk taaribe yëpp a ko bokk bokk yëpp ko bokk ak lislaam yëpp a ko bokk ndax jëmmi Cheikh Abdoul Khadir ku ko xam ku ne yaa xam ci ñaari jiw lislaam aku taalibe ak jàppale jullit yi ak jàppale bokk yi ci noonu boobu dox rek ci la Cheikh Abdoul Khadir doon doxe kon Cheikh Mouhamadul Bachir mii nga xam ne dooma ma te yàlla dogalit mu tudde ko Cheikh Mouhamadul Bachir magam ju baax ja Cheikh Mouhamadul Bachir mii baaxuk sëñ Abdul Xaadir ak baaxug Cheikh Mouhamadul Bachir moom la Cheikh Mouhamadul Bachir mi boole ndax ku ne xam na ne jëmmi sëñ Abdul Xaadir di jur moom la yor jikkoom moo ko jur ci juddu waaye it moo ko jur ci jikko Cheikh Mouhamadul Bachir mi ngi ko tuddee it moo ko jur ci juddu jur ko ci jikko ba noppi ñu tuddee ko ko kon bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di xamal ne teew si nañ fii fi kër Cheikh Mouhamadul Bachir di ko siyaare di ko ndokkeel di bokk ceeg moom bis bi ndax bokk bis bi bokk euh, bokk lislaam yëpp a bokk taalibe Sëriñ Tuubaa ko bokk kon Cheikh Mouhamadul Bachir noo ngi koy siyaar te di ko ndokkeel di ko indilit nuyoo njabootu Cheikh Ibrahima Ndiaye mi nga xam ne mooy wayjuru Baye Sëñ Ndiaye di wayjuru ñi nga xam ne sëñ Birahim jur na leen ñëpp ànd nanoo Cheikh Mouhamadul Basir ci bisam bii nga xam ne bisab Cheikh Abdoul Khadir la di bisab lislaam di bisab taaribe yi di bisab bokk yëpp Cheikh Mouhamadul Basir noo ngi koy siyaar te di ànd ak moom bis bi fas yéene it bokk koog moom ndax nit kit bu la ñoree lépp lu ko ñor loola dalay ñor te ku ne xam na ne Cheikh Abdou Khadir ñor na ko xat yim ñor na ko kon nag nu itam ñor na noo ngi koy ñaanal itam nag ci kattanu yàlla ak barkeb Sëriñ Tuubaa suñ boroom mi nga xam ne moo yor aw fan yor ak wér yàlla na ko aar ci lépp te may ko fan wu gudd wa ànd ak wér Sëriñ tubaa mi nga xam ne it léppi suñ boroom lu ci ne suñ borom jox na ko ca lu ko doy yàlla na ko féete fépp yàlla na ko yàlla aar ci lépp waaye yàlla ko Sëriñ Tuubaa féete fépp ten bokk koog moom lii daal mooy li nga xam ne neewoon naa danaa yëkkati samay kàddu wax ko fii ci keppaaru Cheikh Mouhamadul Bachir ndax bokk ak moom bis bii nga xam ne bisab ñëpp muy bisab Cheikh Abdou Khadir Mbacke wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di ñaan itam képp ku fi teew say jéegoy dikk yàlla na la ko yàlla defal muy ak njëggal sa jéegoy dellu yàlla na la ko yàlla defal muy ak yëkkatigu goo xam ne dootu ànd ak suufe wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wax nañ ni suuf ceer na aw bam koy tuddi nit ku faaw danañ la jéggal kon ku ñëw ci màggalam gii dem ji yow lu la raw ca ak dundam sàkku ko tey ca ak de ngir jëmm jee dem waaye ruum mi ngi ci leer yi di naan